waaw mais fii. yow a ngeen. naka jàmm ji. naka àdduna. taxala rek. mais booy loo def si salle bi gars. yow ay seet si nga xam loo def si salle heure ma d'accord ma ragalu loolu de. mais yaa ngi si forme de. waaw yow luy loolu. mais sax yaa ngi ñàkk nii. teg ci super. Oh. super forme. ci saa waay mais desi booli jël avance yi avance ngay delloo. booy yow ku xiif àllum nen nga naan ko avance avance laay wër. avance ngay wër te bu la joxee avance nga delloo ko. waaw avance laay delloo. booy quatre fois ñu jox avance nga delloo ko bu bari nga obtenir yow mbër nga lan mooy avance quatre fois xam nga booy tëngeej bi ak dob dob lu gi tëngeej am na ku ma mën a dellu avance am foofu mooy xam nga gàmmu gay gàmmu gay tëngeej ku dul gàmmu gay su ma fa duggee du jóg nga <laughs> naan ma ay gàmmu gay kooku mooy kan gàmmu gay jëloo avance am yow moom moo la wax loolu du si réseaux sociaux yi nga xool man réseaux sociaux laay dugg taluma réseaux sociaux je m'entraîne dire kon ku dul gàmmu gay bu taxawee sama kanam ma leb ay fanam boo amee connexion duggal nga xool bàyyi wër lu nooy jëlal si booy yi nga bëri. man dugg xolal dugguma réseaux sociaux jéem a vérifier Gamou Gueye moo la wax loolu. Gamou Gueye mi ngi yàq sa der xam naa nu may def man. këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rekeju. waaw loolu ay wax na rek. toogal foofu xaar. Gamou Gueye laay seet. Gamou Gueye ah gis ma ko de waaye gaalam mu ngi nële. gaalam waaw mun nga woowoon gaal bi. gaal bële la mu ngi nële. mooy gaal gële. waaw bële mu jëm si ginnaaw la. mu jëm gële. waaw amul problème. ok jaajëf waay. jaajëf maa ma seet ko foofu. waaw bëggee waa Guèye. jaajëf jaajëf. jaajëf. Eh, boo ana Gamou Gueye. Gamou Gueye dem na. fan la dem. dem na gàllankoor.

Gamou Gueye mooy wër si dëkk bi naan man dañ maa jox en samba taxaw leen sama yóbbante damaa bëgg mu yegg bu Gamou ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. nga dem nga war xam añ leen seen añ. yow nekkal góoru yàlla waay yow. eh tooñoo leen ma Gamou moo a tooñ añ leen seen añ bu ñëwee ngeen ko man ngi koy wër si dëkk bi. Isaac mais yow mbër bi bi muy ñëw fi di yëngal gaale bi xam foo newoon yow booy mbër bi dëkk parcelle te fa mbër mais ñëw na fi ruube na kër gi yëpp ñëw na fi ruube na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi mais lii combat booy barki alxuraan karim billaay gàmmu ngay bu ko jàppee da koy teg bokkul sax gis nga gis nga lii bokkul sax fa mbër mu mun gàmmu ngay fan la ko ko teg yow lu ngeen wax lu ngeen wax di comédie billaay comédie la mais yow est-ce que yow est-ce que yow gis nga yow dafa am mbër yow wóor na yàlla koy daan nan ko jàppee dafa def teg sa attention wóor na yàlla ci da koy daan wóor na yàlla def erreur boo xam ne nii yaa ngi daan sport nan la koy daan da koy daan mooy mbër bu nekk la mbër tamit la fi mu la ma xam nga la ma kii day tëgg Ama Gueye ak Tapha Mbeur loolu du làmb ma ne ko loolu du làmb loolu combat la ban combat loolu combat la bu mu nekkee combat combat la bu mu nekkee combat lan parce que combat bi taxaw na le 24 décembre bi 2022 mhm. mhm. Tapha Mbeur ak Gamou Gueye dinañu bëri ci arène nationale ak waa Yarambar Events dinaa toog sama kër jàkkaarloog seen affiche seetaan ko du yow sa kër ngay toog waaw man stade laa jëm kon dinaa la téléphone fa la may fekk dinaan sama yu sedd loolu yëpp leer na le 24 décembre incha allah arène nationale mu war a nekk en direct sur seen affiche nekk combat espoir combat boo xam ne Sénégal yëpp moom la ñuy xaar combat boo xam ne fu mu toll nii ngeen gisee affaire nu muy xumbee fee nga xam ne combat bi noonu la nar a neexee noonu la nar a méttee diggante kan ak kan lay doon soq bu ndaw kii xale boobu xale bu waa Pikine yaakaar xale boo xam ne làmb da koo yaakaar moo war a tasante kan Talfa Talfa boo déggee tur bi nga xam ne xale bi dafa tal te boo déggee tal nga xam ne loo xam ne lu dëgër lay doon xale boo la war a dajal sama yëf ndànk topp mañ dem Farba dafa dof ne Talfa dafa dof suñ ko jàppee suñ ko jàppee ay mil moo des ñu dóor ko tànn ko. na ngeen di préparé combat bi. préparé def nañu lépp lu ñu war instant yi dem jàpp ko daan ko mu jeex ñu ñëw jubile Pikine jeex na lamb ji jeex na bu yàgg. waaw fan la leen nar a fan a yóbbu ngeen amee victoire. mu lamb ji mu mos a am jaral ñun. lamb ji moo ñu gën a jaral ñoo ngi a sab teg ay barrière nii daf jaral moo tax waaw te dañ ko bëgg a woon na ñun xale ay xale lañu moo ñu mag fuuf nañ ko jàpp nañ ko dóor si xeex la na jeexee wala si bëre mun na jeexee si xeex mun na jeexee si bëre nañu suñu mbër xam nañ ko mun na xeex mun na bëre waaw te su moytuwul dañ koy dóor mu daanu lamb ji jeex su moytuwul dañ koy dóor mu daanu lamb ji jeex waaw sant yàlla waaw ñu ngi cool bu baax jot la. da ngeen waajale combat bi tey. waaw nag gannaaw bi sant yàlla julli si yonent bi waaj nañ ko ni ko war a waajee préparé nañ ko ni ko war a préparé ànd suñu nit suñu xarit suñu rakk suñu lépp nag waaw di wax ne xam nga lépp luñ ñu si war def nañ ko di xaar nag di sant yàlla bu wér tey ñaan yàlla may ngi si ndam mu guy nag ndax Talfa moom du fee Talfa du fee. du fee du fee. Talfa de. billaay du fee. ndax Talfa méttiwul Talfa fu mu toj ban drapeau la mos a jël mbapat. Ah, waaw parcelle la yow topp si ginnaawam de. non parcelle ak Pikine ku ne xam na ni mu demee. dër bi la. ñoom ñoo bi mais du bi billaay la si te nag parcelle pare guñ fa buñ jógee si Talfa yàlla baax na. fan ngeen jëm. yàlla yàlla yàlla gën a si léegi jàmm si kattanu suñu borom ndax Talfa moom du dossier. Talfa du dossier Talfa moom yàlla def na moom du dossier mais yow mooy loolu waaw ah, yaa fi yow. mbër daaw. waaw jàmbaar. yaa la. na ngeen waajee combat bi waaw comme ni nga ko doon rek. barke Serigne Touba. comme ni nga ko doon rek. est-ce que combat bi dina yomb si yéen. non mënul yomb. mënul yomb mais Talfa. dina xam ne tey du barke bi sëñ Bamba. combat bi ah? si xeex la jeexee wala si la jeexee ñaar yëpp. mais bu xeexee ñu duma ko bu bëree ko. barke sëñ Bamba. jaa ziare. naa si maa ngi soq bu ndaw. voilà. maa ngi soq bu ndaw. combat tey waaw am nañu combat tamit mais mais tamit rek incha bilaay walaay taala Pikine dëkk la. bilaa wala Pikine dëgg la war na yàlla. Pikine parcelle la de. non mais Pikine dëgg la parcelle bukus la. bilaa taala parcelle bukus du dara. bilaa wala mbër mu xaw lu mu entraîné xaju xaju talfa. bilaa wala taala ndam rek. la. Sidi la Sidi. na la lamb la comme rek ñu waaj comme lu mu war rek dinañ bu soobee yàlla. waaye Talfa ñëpp la rek ñoom ñaar ay adversaire lañ kii lu mu nekk keneen ki mën na leneen lii te li ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek loolu kese la leneen. ba daaw. ah, ah ndam rek. ay kul. maa ngi kul baax baax baax. mais combat bi da ngeen koy ah, waajalee. ah waaw ñaan yàlla yàlla may ñu ndam quoi.

Daba naaw. jërëjëf grand. waaw mooy salaam. naka la sant Vieux Touré. da ngeen waajee combat bi. waaw comme d'habitude rek ko doon waajee ah, ah. donte grand combat la ni ko doon waajee dañuy waajee yëpp rek waaw. mais combat yi doon bi du benn. waaw mais du benn bi xam a ko li mu ko jaral tamit xam ko mais nag combat ko combat yëpp rek ah mu dépassé combat waaw. la Parcelles waaw comme d'habitude rek loolu du lu bees. yow mu de. fa lañ fa lañ génn fa lañu duggaat ni parce que ñaan yàlla génn fa jënd rek incha allah waaw. waaw si xel na jeexee wala si bëre. ñaa dépend ah. wax lamb la du ñaax xeer du ñàkk bëre. lamb lamb ñaar xale la ah. est-ce que xam ngeen combat bi ngeen amee ndam tey fa la leen mën a yóbbu. xam nañ ko xam nañ combat moo tax moo tax ñu xam lu ñu jaral xam nañ lu ñu jaral mu ñu mën a yóbbu aussi waaw. léegi mooy faru. waaw alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax a baax amul daal lu ñuy tiit amul daal lu ñuy ragal amul daal lu ñuy moytu waaw. waaw baal ma jégali jëlekale affaire. waaw doo mën. waaw jëlekale rek affaire doo mën waaye laaj doo mën laa wax. dafay dafa doo mën laa wax. non mbër la mais jëlekale rek affaire la. da nga koy daw da nga ko adversaire. non daa ma daa ma xam yow si forme nga nekk. waaw waaw waaw loolu laa ragal quoi. sant yàlla. gërëm yàlla. ñaanal suñu doom. suñu xarit gone gu baax la bokk suñu écrit tamit jox ñu cër respecté ñu ñun magu écrit bi yal na ko yàlla ma ndam bu sedd bi lamb nag ñaari combat dugg benn génn nag waaye benn boobu yàlla nekk si ñun si daraje yàlla ak yonent bi ak barki waajuram ak barki ñu fi toog ñu koy jàppale ñun xëy na mënuñoo bëri ji tey waaye nag su suñu sañoon sax ñu ñooy dugg ci lamb ji bëre yàlla ko yàlla may ndam xale bu yaru bu am jom ak bu am teggin yàlla na ko yàlla suturaal mais kon ndam bu sedd guy. jàpp na combat incha allahu rabbi de moom de luñ ko yebee ak luñ ko jàppalee ak lu mu entraîné jàpp naa ni ah, du ma deux minutes incha allah suñu doom ji am ndam ci kawam si kàttanu yàlla. xeex su day bëre ah moom ñun sans départ ñu fay fekk rek ndax làmb la. làmb dafa wuyoo turam làmb dafa wuyoo turam ndax da ngay làmb nu mu ñëwee rek xaar nañ ko si. lamb nu mu lamb turam rek nu mu ñëwee rek ñun fu pare nañ allah ñu ne yàlla rek la ñuy ñaan mu may ndam rek ci kawam ci kàttanu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf. asalaamaaleykum jàmbaar. waaye màggal nañ waaye sant nañ baax. tur bi naka ba yàqu. ba ba yàqu. moo def rek. damaa mën foofu quoi. damaa mën foofu foofu laa mën. waaw. naa ci bëre bi waaw. foo ko bëgg a yóbbu yow. waaw ah, ci bëre bi ci bëre bi rek. <laughs> amoo combat. non amaguma combat rek mais ñu may wax combat. daw wala yaay moytu. waaw daa mel ni gars yi ñemewuñ am baax na. barke Mouhamed ku ma am baax na. ku ma am baax na ay rëm ak booy yu coow booy ma baax na ku mu doon baax na man moom naa yees. rëm booy ñuy coow ku ci am baax na. kan la war a xam ngeen booy yëpp. Ah, yéen xam ngeen ñëpp. na Ada Fass ñëw. yéen xam ngeen boo yëpp. na Ada Fass ñëw Ada Fass. Ah, ah, na combat. man ma jox Ndiaye Tine. ah xanaa jeexal laa wax ji. waaw jeex na. man ma jox Ndiaye Tine. Ndiaye Tine nga jël. Barke Mouhamed. man gars yi ma fay de xaa xamoo ma. ah. mos nga ma seetaan man daanaa ne kenn rek moo ma ci daal muy rëg-rëg waaw te bëri naa ay ñoom nongoloo ñoom ñëpp bëri naa ñoom moom rek nga ma daan rëg-rëg rek nga ma daan CEDEAO final maa indi woon Gambie kon gars yi tey gën ma fee bare waxal ndax ma am combat boog doo wax ndax ma am combat. gars bu leen ko daw. saay saay la nii bu ko daw saay saay Ndiaye Tine Ndiaye Tine ak kan Ndiaye nañ ma jox Ndiaye Tine Ndiaye Tine wala Bour Sine waaw ñu nga la joxe ma jox sëñ Bamba noonu la def te day ñëw ànd ak suñu rakk rek mu nekk rakk ju baax rakk ju dégg ndigal xam nga nekk gentleman ñu ñëw man Kër Mbaye Fall laa dëkk mais moom moo tax ma jógee Kër Mbaye Fall fajar pour mu ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam bu seetu guy ci grand combat bi mu jëm loolu lañ koy ñaanal ci kàttanu yàlla. bu bi xeex lay am wala bëre. ah. combat ci xeex lay jeexee bëre. lay jeexee ndax ñaari bërekat lañ Talfa bërekat la moom bërekat la mais ci bëre lay jeexee. dër bi dër bi la du yomb te suñu bakkan lañ ciy teg lu mu laaj dañ koy def pour am ndam parce que bëgg <laughs>